Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di gërëm di leen sant ànd ak les programmes de Salam Vision. di ziare ñëpp di ziare kooku képp koo xam ni yaa ngi yeewoo Sénégal muy étranger yi di kilifa diine yi di gërëm bu baax le khalife général des mourides sëñ Mountakha Mbacké euh, doxantu fële ci Niassène yi le khalife général des Niassène le khalife général des Layène euh, le khalife général des euh, des di gërëm aussi waa Thiénaba képp koo xam ni kilifa diine nga di gërëm suñu mbokku chrétiens yi di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm euh, ñaanal ñëpp Sénégal yi nekk bitim réew Sénégal yi nekk partout en Europe en Asie jusqu'en Afrique que Salam Vision mu ngi leen bu baax di leen ndokkeel si weeru koor bi ñu jëm mooy gëstu bés bi euh, xam ngeen ni am na benn commission bi saytu weer bi euh, weer boo xam ni mooy weer bu sell bu ñuy gide ñu mën a woor si jàmm ak salam di sant borom bi di julli si bi sallallahu alayhi euh, dëkku diine la dëkku lislaam euh, képp koo xam ni gis na weer bi ànd ak dal ak yar ak teggin nga consulter la commission lunaire commission bu di saytu weer bi xam ngeen ni amoon na benn boroom xam-xam bu mag di Ahmed Yan Thiam euh, bi gën a àdduna bi nga xam ni euh, yàlla moo ko fi jële nekkoon nit ku baax nitu diini nitu lislaam liggéey na diini islam liggéey na la umma islamique ñaan yàlla yàlla xaral ko àjjana euh, di woo bu bees bii lañu bokk ndey nañu bokk waay te Sénégal ñoo ko bokk te nañu moytu aussi fitna ak yenn seytaane yi dugg seen biir euh, barki démb fële ci ministère de l'intérieur si teewaayu Antoine Félix Ndione samp na benn commission provisoire commission rek moom mooy saytu ñooñu ñooñu lañu dénk pour ñu mën a gunge euh, leeral sénégalais yi si euh, seen liggéey naam nekkoon na tey keroog ndaje bu am solo si ay kilifa diine ay représentant xalif loolu ministère de l'intérieur mu ngi koy rafetlu bu baax a baax di Antoine Félix Ndiol ma ne Sénégal euh, ñoo ko bokk ñi ngi jëm si weeru koor weer bu sell weer bu weeru yërëmande weer bi nga xam ni yàlla moo ko baaxee di woo sénégalais yi ñu gën a góorgóorlu euh, ñu wàññi mbumbaay yi parce que mbumbaay yi bu weeru koor jotee dañ ko war a dàq loolu mooy réewum jullit te bu demoon tey Arabie Saoudite nga dem te yenn pays arabes ay Algérie ay Libye ma ne ñooñu bu weeru koor ñëwee lépp la tëj ba weeru koor passé mooy delloo njukkal weeru koor te delloo njukkal ay xam mooy suñu borom sallallahu alayhi wa sallam julli si Muhammad mi nga xam mooy sangu-sang yi loolu mooy l'islam Sénégal nag am nañu référence sur le plan religieux euh, lu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba gis ngeen ay jamonoom lu baax rek la doon Euh, Boukounta El Hadj Malick Sy radiallahu anhu béréb mbokk ñase yi maam Limaamu Laay dañ doon daan xaafu taalibe yi bu weeru koor ñëwee euh, dëkk bi danaan selaw jaamu yàlla julli si Yonent bi ñi ngi jàng xasaay ñu ngi jàng alxuraan ñi ngi euh, ragal delloo ñu kër seen borom seen loolu mooy Sénégal loolu gis nga buñ ko defee réew mi na gën a jëm kanam te coow lii na fi jóge te mbas mi ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla jële si weeru bi ñu jëm mbas mi fàtt nañu sonal na doomu aadama yi indi na fi ay gàllankoor gis nga ñàkk seen liggéey métti na usines yu tëj euh, euh, ndaw yi ñàkkum xëy bi gis ngeen ko ba si président de la république moom jël na ndogeel ne dafa war a euh, gunge jàppale ndawu Sénégal yi wutal leen xëy loolu askan bi yëpp ñu ngi koy rafetlu mais di wala président Sall mu am un comité de suivi comme weeru koor la jëm weeru yërëmande la président am yërëmande ak les ministères concernés ak gouvernement bi yëpp ñu respecte seen i kaddu delloo njukkal askan bi askan bi moo leen fi ma ne loolu mooy sunu gaal weeru koor nag mbokku Sénégal bu ñëwee euh, lépp lañu war a bàyyi muy baal yi muy cérémonie yi muy mbumbaay yi si mbedd yi euh, spectacle yi yëpp dañu ko war a bàyyi parce que benn weer yàggul benn weer képp lañ leen ñaan Euh, ñu mën a jàmm suñu borom wàcc yërëmande Sénégal loolu mooy Sénégal loolu ñu fekk démb loolu ñu fekk tey loolu kenn mënu ko fi dindi askanu suñu gaal gëstu tey bi nag di woo aussi euh, kilifa diine yi ñu nekk si ñu nekk si euh, xalifa bi woo taalibe yi woo ñu nekk si jumaa yi jàkk yi def seeni xutba gën a sensibiliser nit ñi si mbas mi parce que mbas maa ngi fi tey mbas maa ngi fi ëllëg ñu ngi jëm si biir koor boo leen xoolee gis ngeen kooru daaw si biir mbas bi la woon euh, metti na nag tey président teggi na lépp muy couvre-feu muy état d'urgence état d'urgence sanitaire président teggi na lépp parce que askan bàyyi doon jooy démb ah président ñi ngi jooy ñàkk na suñuy liggéey usines yaa ngi tëj petit par moo tax président Sall am yërëmande euh, delloowaat euh, buum sa boy boy la loolu mooy président république ma ne wer koor weer bu sell la dañ ko war a jox gëddëm askanu suñu gaal di woo ñëpp muy mag muy ndaw di aussi ñi nga xam nag ñoom ñooy prêcher dans les radios et dans les télévisions le CNRA mooy bii euh, kuréel bii saytu euh, rajo yi ak télévision yi génn nañu benn communiqué benn bataaxal ñi ngi woo képp koo xam ni oustaz nga euh, maître coranique nga nga am ay émission si rajo yi si télé yi nga bañ a indi fitna nga bañ a xaajaloo bañ a euh, ŋañ yenn tarixa yi bañ a di saaga di xaste di dugul seen nekkul ma ne loolu dañ ko war a moytu euh, loolu mooy communiquer communiqué général Babacar Diagne le président du Sénégal keroog woote na euh, woote bu am solo ah fii la Salam Vision aussi dangeen leen proposé ay programme yu mucc ay ay programme yu am solo dina am ay waxtaanu diine ak oustaz Diarra oustaz Mouhamed Ndiaye yeneen collaborateur Euh, ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ni am ngay manifestation sur le plan religieux si weeru koor bi boo leen contacter le service commercial de Salam Vision ñu pare nañu pour defal leen ko en direct defal leen ay reportage yu mucc ayib ñun euh, ubbeeku nañu ñëpp la ñu talal loxo euh, muy kilifa diine yi muy tarix yépp bàyyi ñu kenn loolu mooy suñu su mooy suñu suñu Sénégal Sénégal nag mi ngi woo ñëpp ñu mën a jaar def liggéey bu am solo. bañ indi ay discrimination ay xaajaloo ay euh, ay tolof tolof ay lënt lënt loolu Sénégal moo tax euh, ni ñu gën a góorgóorlu di woo tous les prêcheurs islamiques ñu nekk si rajo yi télé yi ñu bokka ndey bokk baay euh, ku nekk am nga droit ànd ak sa tarixa mais bul nañu tarixa jàmbur bul indi fitna boo xoolee tey Sénégal xoolal ñu ñi fi nekkoon démb jàmm la doon woote mooy sunu gaal di ñaan yàlla kooru ren bi nekk kooru nattaange. koorum réussite mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla mën na ko am na ko nañu euh, tabaxol yi di dabaax doon wax Abdoul Aziz Sy Dabakh ñoom sëñ Fallou Mbacké ñoom sëñ Babacar Sy xooleen royukaay nitu diine yi ñoom ba si sëñ Touba El Hadj Malick Sy dañ doon yi ay weeru koor ñuy jàng alxuraan di ñaan suñu borom borom yi di wàcce ay xéwal ma ne yàlla kenn la buñ ko talalee loxo ñaan ko Sénégal incha allah boo xam ay deux mille trente cinq fii ba deux mille cinquante réew mi day natt di wala président Sall tout le gouvernement sénégalais ñu góorgóorlu xar seen tànk tubéy ñu bokk ndey bokk baay comme weeru koor la jëm mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp moo tey gëstu bés bi jëmale ko si weeru koor bi à tous les sénégalais déw na ci jàmm ak jàmm.